yal yàlla yendal ci jàmmam tey ñu war a ñëw ci naka lañuy ñuy sangoo janaaba boroom xam-xam yi jàngal ñu leeralal ñu naka la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee naka la ko jàngale ñenn ci ñoom jàngale ko benn yoon ñenn ñi jàngale ko ñaari yoon ba ca jiitu ci nu ñuy sangoo janaa ba mooy jullit bi day yéene ci xolam ne damay sangu xam ngeen ne yéene ci lislaam kenn du ko wax ci gémmiñ waaye yéene moom ci xol lañ koy fas waaye kenn du ko tudd ci gémmiñ loolu mooy benn ñaareel bi mu raxas ay ténqam mooy cati baaraam yi ba fi lam yi di yem walla ñu ne montre bi wala jara bi raxas ko ñetti yoon ñetteel moom waa jooju di sangu bëgg nañ mu tuur ndox naana mu saw jégglu ndax la desoon ci maniyu bi génn mu tuur ndox ndax la desoon ci maniyu bi ci yaram ci fa muy tuure ndox daal di génn walla bu dee jigéen la tamit mu raxas ko ba mu set bu dee góor la tamit mu raxas ko ginnaaw ba mu tuuree ndox walla bu tuurul ndox tamit ñeenteel bi mooy mu raxas barab boobu ba mu set raxasaale pooj yi ak fépp fu mu yaakaar ne sobe war na koo laal moo tax boroom xam-xam yi di wax ne ba mu raxasee loxo yi ba pare tuur ndox bëgg nañ ci moom mu raxas awra bi ci kanam ak pooj yi ba ci ginnaawam ana jumbaxam ba ci óom yi ci kanam mu raxas ko ci ginnaaw gi mu raxas ko ndeyjoor beek càmmoñ bi mu raxas ko ba mu leer ko ne fii nii barab bu fi takkoon ci soobe set na juróomeel mooy mu raxas loxo yi raxas loxo yi ba mu set ginnaaw ba mu raxasee awra bi ba pare loxo yi la ciy teg foofu nag lay fase ci xolam daa di tudd ci xelam bismillah ndax ci toilette la nekk toilette kenn du fa tudd yàlla waaye da koy fas ci xolam daa di koy wax ci xelam daa di tudd yàlla bismillah mu daldi tàmbale njàpp benn benn raxas loxo yi benn yoon kom njàppam julli boole gémmiñ geeg bakkan bi fiiru sarax fiiru daal sëlmu raxas loxo ndeyjoor ci baaraam yi ba ci conc yi raxas loxo càmmoñ bi daldi di masaa bopp bi dem ak dikk benn yoon mujje tànk yi li mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sangu foofu lay jële ndox mu bare bari daal sotti ci bopp bi xàlli kawar gi ñetti yoon dugal baaraami samp ko ci bopp bi daa xàlli kawar gi pour ndox mi daal di mën a dugg laal deru bopp bi su fekkente ne jigéen ju léttu la kawaram noonu la ko ci sotte du firi kawar gi su fekkee ndaw si moom mi sangu janaaba ay létti kawaram la def kenn du firi bopp bi moom du firi boppam noonu lay sangoo ndax létti kawar kenn du ko firi ci sangu janaaba mbokk yi mu raxas bopp bi xàlli ko su fekkee kawari boppam la mu dugal baaraam yi ci biir ndax deru bopp bi daldi tooñ ndax ndox mi yegsi ci yaram bi waa léegi bu fekkee kon da cee teg greffage wala mu teg ci mees wala mu teg ci pirig wala mu teg ci walla walla walla walla loxo yi mu def ci émail ndax kon sangu boobu dina baax ndax sangu boobu dina mat tontu bi mooy déedéet moo tax ñu war a delloo ci xel yi xam ne mbir mi jaamu yàlla la yàlla bu la ñoree sa diine bu la ñoree lépp luy tax sa jaamu yàlla googu du mat dinga ko sori dinga ko moytandiku doo ko laal doo ko jege juróom-ñeenteel moom waa jooju na raxas ndeyjooram jooram tàmbale ci kaw jëm suuf di sotti ndox ba mu yegsi ci tànk ndeyjoor bi mu daldi dem wàllu càmmoñ bi tàmbale ci kaw di sotti ndox di raxas ba yegsi ci dojoru tànk càmmoñ bi mu daldi di yeggali tànk ndeyjoor bi yëggali tànk càmmoñ bi lii mooy première sangu bu sunna jàngale na yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ne nii danañ ko sangoo ñaareelu sangu ba mooy ginnaaw yéene ci xol wax ci sa xel bismillah daa raxas loxo yi ba mu set daadi raxas awra bi ci kanam ak ci ginnaaw ah la ca des nag mooy nga sotteeku ndox mi mu daal tàmbalee ci bopp bi ci kaw wàcc ba ci suuf su loolu matee mu daal jàpp njàppal julli ci kaw su tàmbalee njàpp njàppam julli bi ba njàpp mi jeex mu daal di njël ndox mi daal di sotteekuwaat daat nay mat sangoom daat nay mat gàllax ndiku njàpp mi daat nay mat mbokki jullit yi li ñuy leeral rekk tuuti mooy nii jigéen di sangoo janaaba noonu lay sangoo bu gisee baax noonu lay sangoo bu setee ci dëretu wasin noonu lay sangoo bisu àjjuma noonu la nit di sangoo bisu àjjuma pour julli ji juma noonu la nit di sangoo ci ñaari feedi tabaski ak korite pour julli ji noonu la nit di sangoo ci armal umra ak aj noon la nit di sangoo bu pare sang niiw ni nit di sangoo ba ci bu sëyeeg soxnaam ba pare noon lay sangoo ci yeneen yi des noon lay sangoo ci àjjuma noonu lay sangoo ci feet yi noonu lay sangoo ci armal ak um uh, su armalee umra ak aj noonu lay sangoo su paree sangu ci néew ñu góorgóorlu di topp dars yi di ko déglu suñ ci juumee ñu gàggantiñu suñu ci mànkelee ñu fàttaliñu suñ xamulee ñu daldi laaj ndax mbokk yi lii moo nuy dimbali ëllëg ba sunu diine baax lii moo nuy jàppale ba ñu mën a nekk ay jullit lii mooy tax ñu xam fu nu teg sunu tànk du ñu nekk ay làmbatukat di wax rek gis naa nit ñi di xëppoo may xëppoo gis naa nit ñi di def may def mës naa gis jigéen joo xam ne dem na màkk ba ñëwaat di ma laaj nu ñuy sangoo janaaba ak nu ñuy jàppee te dem na màkk ba ñëwaat naan ma jàngalaat ma ko xam nga yooyu lu doy waar la loolu lu yéeme la te li ko waral rek mooy sàggan toog ba sa jëkkër faatu ñu lay jàngal nooy sangoo te nga def ak moom juróom-ñaar fukki at toog ba biyee màkk bett la nga naan nu ñuy sangoo yooyu ay mbir la yoo xam ne tey du jeex ci dëkk bi ñoo ngi jéggalu kàddu yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.